salaam wa rahmatulah barakaatu Haj Babacar delloo naa la nuyoo bi ak ziyaara. jaajëf oustaz yóbbalu bés bi. waaw Babacar ñaareelu yóbbal bi ci semaine bi dafay mottali li ma doon wax démb ci ki damm wala mu foxoj wala mu am fu metti ci ay yaxam te mu dem ci docteur faju boole ceeg di ko mocc su ko defee bu jàngee aaya bi nekk ci 259 ca suuratu baqara muy wandur ila al idaami kayfa nunshizuha suma naksuha laxman mu jàng ko ñetti yoon day dem ci suuratu yaasin suuratu yaasin mooy surat numéro 36 mu dem ci ay 79 bi kon ma nga ca jeexalu suuratu yaasin su demee day wax qaala man yuxyi al idaama wa hiya ramimun qul yuxyiha alladi ansha'aha awwala marratin wa huwa bi kulli xalqin alim aaya boobu lay jël jàngaat ko ñetti yoon di raay foo nga xamante ni bii foofu la yëg ni moo metti incha allah lii bu koy mocc suba di ko mocc ngoon boole koog di faju hmm. lii di yàlla yombal ko wér xaaji Babacar ci ay yax wala dam